خير المحبوب عليكم ولا الضالين آمين ومن بها دخل في أمر فلا يكون خائبا ولا مستفلا نصرتني فإنك النصير محوت أي بإنك البشير زم الصلاة على المختار من مدر خير البرية من باك ومبتسم يا ربنا حبلي بحق الكوثر يمن الحياة وأجور كسري يا ربنا حبلي بحق الكوسري بحياة الأجري كسر بركة بارك إبراهيم فار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تينا نون في تي بالين توبا تي كسن فالو فال نون سن علي فانبور تي استجوم مو مانس إبراهيم فال باب المردينة mu bëgg a def waxtaan ci lenn ci mbiri maam Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridina mi nga xamante ni soppeem ñépp la woon xaritum ñépp la woon maam Cheikh Ibrahima Fall nag damay wax ni moom géej la géej nag boo tàbbi ci biiram su fekkente ni bi ngay tàbbi biir géej ndox ma mooy la la yitteel foofu yem aku xuus fu ko gën a lëgg gën koo xóot mu ngi ci biir géej yaa fa yëggu su fekkente ni bi nga tàbbi ci biir géej jën ya mooy la la jën woo a gis wu ko ëpp gën koo rëy mu ngi ci biir géej yaa ko gisul te Maam Ibrahima Fall géej la kon nag géeju ngëneelam googu nga xamante ni ci la bëgg a tàmbalee waxtaane tey ak géeju cofeelam googu nga xamante ni ci la bëgg a tàbbi ci waxtaan te maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina mboolem ñu ko xamal muy ko weex muy ku ñuul ñi mu bokkalan ko baax ki borom Tuubaa Xaadimu Rasuul ñépp cofeel gi ñu amal ci moom ak ñi mu bokkalan lislaam bi ci senegal ak tarixa bu mu ci mën a doon cofeel yi ñu amoon ci moom ak tubaab bi nga xamante ni sax mooy nasaraan bi nga xamante ni amoon nañu borom tubaab aw dig maam si Fall cofeel gi tubaab bi amoon ci moom ci la ñu bëgg tàbbi tuuti tey ci ay waxtaan ndax maam si Ibrahima Fall Babil Mouridina li waral ñépp bëggandoo ko muy ko weex muy ku ñuul mu di jullit muy nasaraan bi mu ba ci murid yi ñëpp bëggandoo maam Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridina ay jikkooma dafa dajale woon jikko yoo xamante ni ku ko jikkowoo ni ko ñëpp bëgge noonu la la ñëpp di bëgge ndax dafa am jëmm yoo xamante ni li ñuy bëggee doomu aadama mooy xam-xam te maam Cheikh Ibrahima Fall Babil xam-xam la dafa lande woon ca moom ci lépp loo xamante ni day day xamle lislaam di xamle mbirum yonent bi alayhi salaatu wasalaam di xam ne tawxid muy mbirum borom bi tabaraka wa taala maam si Ibrahima Fall Babil Muridiina ku teel a wattu alquran la maam si Ibrahima Fall Babil Muridiina téere yi ñëw ci Afrique di jàngale lislaam ci téere yëpp ci liggéey ji woon maam si Ibrahima Fall Babil Muridiina ku déggan luxatul arabiya dégg ga mu déggan luxatul arabiya nag ak warmaal gi mu warmaaloon Serigne Touba te jël àq xam yi di ko dunde moo waral li mu bind bariwul ngir ko baax ki bind gi muy bind ci loxatul arabiya moom mu ak sëriñ bi li mu xam ci loxatul arabiya moom mu denc ko lu mu ca war a jariñoo mu di ko liggéeyal borom Touba Xaadimu Rasuul waaye nag xam-xam bu rëy boobu mu aman képp ku dendal ak moom wala nga jege ko wala mu jëflanteeg yow ci minn mbir dal di xam ni kii na ku géeju la ci lislaam ku géeju la ci alquran ku géeju la ci mbooleem xam-xam yi yi nga xamante ni mooy luxatul ah, xam-xamu sharia moo xam aqiqa la moo xam tawhid la lépp saa boo jaxasoo ak maam Cheikh Ibrahima Fall géeju gi mu ci géeju wan gi ma la koy wan di léeg-léeg ma wax la ci ba nga dégg ni kii xam na ci xam-xam bu wér waaye nag dala koy daal di waraat nag ci jëf na ko yàlla santaane ba nga xam te ni yàlla santaane lii nii la ko Cheikh Fall ma ne ma ne woo xamante ni du ma ni kenn yëggu ca waaye bu ca kenn yeggee xamuñu ko mbaa ko ci yëgg bëri loolu bokk na ci rek téere bu mag bi nga dégg muy gis bul murit ay loxo yu arab nga ci yoo xamante ni soo ko doon jàng tey di nga dem ba defe ni dafa génn loxtu arab yi fi génn ko waaye baatu arab yu xóot yi mu ci dugal am sëriñ daara ba la ko jàng sax moo dem ba jafe maam si Ibrahima Fall nag loola nit yàlla yi ni ñuy donn ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay mbir da koo donn ci ku baax kii rasulullahi alayhi salaatu wasalaam jële ko ci sangam tedd ba borom Tuubaa Xaadimu Rasuul la muy wax ni lahu min al ilmi maa lam yaxwihi aw jinnu aw malakun wa sadru misxaar saamal si Ibrahima Fall doon na ci xam-xam yi yàlla bala leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam te xam-xam yooyu yëpp rasulullah alayhi salaatu wasalaam doonale ko borom Tuubaa mu jëlee ko ci borom Tuubaa ba nga xamante ni géeju gi mu ci géeju kuy bëgg jëm ci xam soo gisee maam si di ko bëgg ci xam-xam bu réy bi mu géeju woon su ngeen jëflantee lim lay won ci jëflante gi ci xam-xam woon lépp ci xam la tegu di xam ne kii. borom xam-xam la boo xamante ni kuy bëgg jëmm ci xam-xam di ko bëgg lii ñenn ñi loolu lañ ko bëggee woon la ca des muy lewet maam si Ibrahima Fall Babil Mouridina lewetaay ba ëpp ndax man mii jële naa ci yaa jab njaay doomi sëñ njaay roq ya ne ma njëriñ laa ci kër sëñ bi tey yaa jab njaay ne ma 1916 bi maam Cheikh Ibrahima Fall jógee Thiès ñëw njaareem fekk ci ku baax borom Tuubaa Xaadimu Rasuul nee na ma booba ndaw lu jigéen la lu toll ci euh, bagage yi maam Cheikh ba ñu koy jël yëkkati nañu benn tuurub la booba lal yi dañuy dañu koy gas def def lu ma juróom benn jën gàll ci ay bant def ci ay tóor jël pajaas teg ci kaw booba koomu Sénégal daanaka weesuwul lool nee na jël nañ ci benn tóor yan ma tóor ba nii mu génn ne bi ma génnee tóor ba gis ma sànni ko kon kooku lu mu néew néew tóorub lal duñu ko yan gone amul fukki at mbaa ko at yaa jam jaay moo moo ma wax ne na bi nu nekkee ku baax ki ñëwee njaareem ci ab lewetaayam nee na Moussa génn bu nuyu ak mag ñi ba waxtaan ak ñoom ba noppi dénk leen ci ak taalibe ak ni mu doon jàngale ak taalibe ndax boroom Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo yemoon nu ñu doon ci njariñ ku baax ki borom Touba Xaadimu Rasuul bu xëyee day génn ci barab mag ñi ñëw mu waxtaan ak ñoom ci sharia waxtaan ak ñoom ci aqiqa waxtaan ak ñoom ca tawhid dénk leen digal leen tere leen maam Cheikh Ibrahima Fall baabu murideen tam moom tam bu xëyee bu génne ci njariñ li nga xam te ni moom lay dunde te muy ak taalibe te ak taalibe moy Alquran karim ndax alquran ak talib rek lay jang nak talib moy islam du mat sa bu musaa xëy day tok ak mag ñi waxtaan ak ñoo ci ak taalibe ak ñi mëna a ñoo ci borom toba khadim rasul ak ñi ànde ak njabootu borom toba khadim rasul gi ci bu jaay ni ma nak neena amna bis bi mu toge ak mag ñi waxtan ak ñoo ba denk leen digal leen tere leen di duggal ci néeg bi nee na nee ndaw ñi moy gone yu jigen yu ndaw ye gone yu góor yu ndaw ye ya jab njaay wax na ma ni lo daal di ak mom nee top ci bu ci birim bi muy ya nak ma sax ibrahim fall di musuma ko xam le lal bu muy tëdd nee ak basang lañ ko daan lalal jël mbajj lal ca ne basang gogu ci la don donte ko ndira dallu sooy dalu ci lay dalloo nee bi nu ci mom ba ci néegu biiram bi muy tëdd nee na coowul coowul gone yu jigéen yi gone yu góor yi nii niiwul wëlbatiku leen niiwul dëpp leen ah, dàqul kenn ci lewetaay ba mu lewetal ak nongoo gi mu nongo of ak njaboot nee ba nu ñuy ba ci biir ak coono bi mu sonn ak li mu doon digleeg li mu doon xam ne nee daal daal tëdd ci basan googu daal di tëdd njaaxaanaay yaa jàpp ne nag mu dee tëdd njaaxaanaay daal di lamsal bët yi gëmu gëmul bàyyi Ousseynou Niang mi nga xamante ni moo yoroon keesu biiru kër maam Cheikh Ibrahima Fall ga ndax ndax euh, kër ga ñaari bëkk dañ dañu ko yoroon sëñ Ousseynou Niang moo yoroon kees gi nga xamante ni ci la mboolem nii gi maam Cheikh Ibrahima Fall ne ak ay bagages ak ay matériels Baye Cheikh Diaw moo yoroon mboolem. lii keesu kër ga kër maam si Ibrahima Fall bi nga xam te ne moom ba jant soo bu tëjee kër gi kenn du mën a dugg kenn lu mën a génn te yëgu la sëñ Cheikh jaw bàyyi wasi ne ñag nag ci biir kër gi nag dafa am keesu maam Cheikh Ibrahima Fall boppam boo xamante ni moom muy bëgg nit bi ci maam Cheikh Ibrahima Fall mooy keesu boppam bi yaa jàpp Njaay ne ne bi maam Cheikh Ibrahima Fall ñëwee nag mu topp ci moom gone yu góor yi ak gone yu jigéen yi mu daal di dugg ci biir néeg bi daal di tëdd tëddee njaaxaan naay lamsal bët yi ne bàyyi ba si ñoom ñu leen waaye suñ bi daa sonn génn leen suñ bi daa sonn kooku foofu mu yegg ci lewetaay génn kilifa gu fi yegg ci lewetaay yumb yumb ndax kilifa boo ci mën nag bu waxtaanee yow wax ak yow ba noppi la ngay la nga bëgg nga wax ko ko la ma la ma la la ma la cay wax mu wax la wacca su jig duggee jëm ci biir néegam ci néeg bi nga xamante ne nag mooy néeg biiram bi muy dalloo duñu may kenn nga yëg si fa te man si kayam faal yegg na ci leewataay ci diggante ak ak njaboot loolu te am na ñoo xam ne ci leewataay la ñuy bëggee jëm comme leewataay bi man si kayam faal leewatan leewet ko ci njaboot leewet ko ci lislaam leewet ko ci bindeef yépp ndax na saa wax ni wala xad karam naa bànni aadama wa amal naahum fil barri wal bahri wa rasaxnaahum wa fadalnaahum ala kasirin mi man xalax naa tafdilan saamam si Ibrahima Sall aay boobu la jël na ci diggante doomu aadama la yàlla fonke doomu aadama yi maam si rafaat fonke doomu ci lewet dono ji xaadimu rasul sangam bi doon ci rasulullah yi alayhi salaatu wasalaam ci leeral ci ni ko bàkke wax ni lahoo min al xilmi maa lam yahwi ii jabalun laxaa asaa fil baraaya wa huwa sabaaru maam Cheikh Ibrahima Fall dayoo ba mu ci am ak martaba ba mu ci yeggan sam ci lewetaay man yumbul kilifa gu fa mën a yegg kon te am comme kon nag ña nga xamante ni dañu doon bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall te lewetaay maam Cheikh Ibrahima Fall lewetaay boobu liñ ko bëgg woon moo tax mu doon soppi ñëpp amul woon noonu maam Cheikh Ibrahima na nag ko xamul xam bëgg ko te ñi mu ànd ci borom ko baax ko xam am na ñoo xam ni ci xel mu ñaw la ñu bëgge doomu aadama loolu nag. ca la convaincre moom maam Cheikh Ibrahima Fall tubaab bi nasaraan bi xelum maam Cheikh Ibrahima Fall dafa réen réy goo xamante ni baatin bi nga xamante ni dañu ko tàmm waxtaane ci baatin maam Cheikh Ibrahima Fall xel mu réy ma boo ko doon nattalee ndegam xam nga ko da nga naan mu baatin ba ñoo tolloo moo tax bi tubaab bi natt nit ci am xel gouverneur général yi nga xamante ni ñoo fa dajewoon ak marché Cheikh Ibrahima Fall bi ñu nattee am xelam ak ak ak euh, relation diplomatique bi mu amoon ci diggante ak góor gouvernement France kenn da ca yëgul moo tax ndax bi nga xamante ni ku baax kii tubaab yóbbu na ko gànnaar ba 1900 sept gouverneur général wax maam si Ibrahima Fall am lu mu sàkku ci moom ndax maam si Ibrahima Fall mat nga dafa yéen ndax gouverneur dafa génn ñu nekk ndar maam si Ibrahima Fall nekk ndar maam Cheikh Ibra nag su génnam daan doxantoo ñaari xeeti taxawaay la daan taxawe su fekkee day dem ci woote bi lislaam woo nit ñi ci lislaam ba mu jóg kilifa yi lay jiital seex yi gën a mag lay jiital ña ca topp daraja topp ca ña ca topp daraja topp ca daana génne noonu nga xam te ni semence universelle génnee nga daal di xam kilifa yi nekk lañu ñu yilifinte maam si Ibrahima Fall tam daani génnin waneen xeetu génnin mooy loolu tubaab di wax promenade su ko daan def nga xam ne day doxantu rek di tàllal ay tànkam da daan taxaw mbooloo mi rang bu boobaa nag maam si Ibrahima du xool kilifa yi yilifante day xool ñi sutante ndaama yi ñooy jiitu nit ñi diggu duumuy topp ja njool ya topp ja léegi nag rafetaay boobu ñu àndal nag nga xam te ni nit ñi ñi ñii njool ñoo féete ginnaaw ñi digg dóomu nekk ci digg bi ndaama yi féete kanam ña xam te ne ba maam Cheikh Ibrahima Fall jiitoo boo jàkkaarloo moom da gis bopp ñëpp ba ci ka mujj rafetaayoo kolon boobu nag jaaxal tubaab bi maam benn tubaab boo xam ni bi maam Cheikh Ibrahima Fall di ñëw dana jàkk rek jàkk maam Cheikh Ibrahima Fall ca Ndar maam Cheikh Ibrahima Fall di ñëw rek mu ne ko jàkk taxaw ci benn balcon ba mag ci Ibra Fall ñëwee ba tolloo moom rek xaaj bi ko nag xaaj bi ko ne ko tubaab mu miir ba mu miiree daanu ñu jël yóbbu hôpital ñu ne kon comme tubaab bi nag dañoo ragal kii ak civilisation bi mu bi bi mu yoree ndax maam ci foo ko mos a fekk yére weex tal liy jiital jël jël jël tray muy luus teg ci yére yu ñuul yooyee set wecc ànd akum jàpp foo ko mos a fekk dafa jàpp ba seen yiw ñu ne kon nañu ko yóbbu nañu ko génne Ndar ndax ginnaaw tubaab bi ragal nañu ko ba tubaab bi xool na ko mu xàjji ko mu daanu nañu ko génne Ndar waaye naka lañu koy génne Ndar ndax nit ku yiwee nii selle nii lewete nii bare xam-xam xel mi rafet noo koy génnee ñu ne dañuy def benn stratégie rek ñu ne nañu koy defee gouverneur général woo ko ne ko yow xool nanu sa mbooloo xëjuñu biir ndar dama bëgg am na àll bu ñëw àll jaara ci gànjool ma may la ko ñu dem liggéey ja àll jaara boobu ci gànjool nag ñu ne ko àll jaara surface ba lu mu niiw nii war na ma ay sept kilomètres bàyyi mu dama isaa moo ma wax ni Moustapha man ko faal mu ne Cheikh Faal ne ko nga xam ni bañ ko ne nañ la jox àll jaara ci njëriñ keroog mag ñi am nañ ci ak jaaxle ndax da ko daal dikk ak jël saa moom Ibra Fall dafa daal di nii rek fudd ni xeexee doom nasaraan bi wax na dëgg de kuy liggéey doomi jaar boo ko joxee àllub jaara xol ba sedd nasaraan bi wax na doom kuy liggéeyal doomi jaara boo ko joxee àllub jaara xol ba sedd maam ci Ibra Fall nag yendoo loolu ba ngoon ca lañu ko jox na àllub jaara bi ci gënjool àllub jaara boobu nag deñ ko wooye tasineer deñ ko wooye pilote waaye lépp benn suuf fee ba mu ñëwee àllub nag di fa bay pomme de terre ak ay ay ak ay légumes yoo xamante ni luy dem ci cin ñu di ko fa bay ba benn bis gouverneur booy bi ko jëndal pomme de terre ak légume bi mu ko jëndal carotte ak nawet yépp mu ne ko man de légume bi nga ma jëndal moo gën bii jóge France pomme de terre bii moo gën bi jóge France mu ne ko dafa am sama benn client bu ma koy jaay ci marché Ndar mu ne kon bu subaa nag ci àll nga won na ko ba mu àndeeg booyam boobu dongo bi ne ko ah noonu de fii nu ngi koy béyee ci gànjool fu ñuy wax jaara tubaab bi ne ko bu sab liggéey yeggee naa la yóbbu nga won fi nga koy béyee liggéey ko mu daal di jaay ba pomme de terre am jeex mu dugal ko ci otoom te booba tubaab yépp gouverneur général rek mooy am oto chef de yi fos lañ daan war commandant de cercle yi fos lañ daan war commandant sark fi nek ni moy préfet fa sañ dal war chef de canton yi muy sous préfet fa sañ dal war ben tuba bu musa am wata ci sénégal bu gouverneur général ak goor ak gouverneur du sénégal ñaari gouverneur yi rek ñoo daan am auto lu ko moy ab commerçant bu bari xass lay doon ñu la di koy duggal mu na leen dugal ci auto bi ba mu jakkalo mam ci ibrahim sall ci tassine ganjol mo dal xamni ki ni muy ki ñu génne woon te tubab dafa ñaw <clears throat> mu yaakaar nag li tax maam mu génne maam si Ibrahima Fall diggante war na ko fee xam mu amul ragal maam si Ibrahima Fall daal koy daal di koy daal di ko ni tubaab ñaari tubaab yi nag wuute ndax kee da ko doon xool moo tax nguñu kilifa nga nga nga jël sa bët fixé ko ko rek ci lu ànd ay teggin nañ ko tëree ci kilifa kii nag moom da koo jub wane ak ragal jox ko respect mu woo ko kee da koy xaj kii da koo woo tubaab. mu ne ko jàkk mu ne ko kaay lu mu doon di foo ma dara doom kaay ba mu ñëwee nag mu ne ko man dafa am lu ma bëgg waxatul waxe pomme de terre bi mu ne ko bëgg mu ne ko sama soxna si dama ànd ak moom juróom-ñetti at am na ñu wax juróom-ñeent te awma ak moom doom ma bëgg nga ñaanal ma am ak moom doom maam fi Ibrahima Fall ni ko xeexee doom nga dëgg waaye ku nekk am na lu mu bëgg mu ne ko loo bëgg mu ne ko sëñ Bamba sama sang bi nekk gànnaar laa bëgg ñu indil ma ko ci réew mi <coughs> gouverneur ne ko nangu ko lool waaye nag fa mu nekk day laaj alal duñu bàyyi ci ci ci ci biir si gouvernement France pour mën ko faa jële loolu moo tudd caution ñu bàyyi ko pour mën laa indil Serigne Touba jëlee la ko gànnaar mën la ko indi ci biir réew mi kon nag dama jox ñetti téeméeri euh, dërëmi ngordu juróom ñetti téeméeri dërëmi ngordu booba juróom ñetti téeméeri dërëmi ngordu mi ngi mel ni fi nekk nii kuy laaj ab sëriñ juróom ñetti milliards noonu la toll ndax benn dërëm ngordu la la jamono yooyu li la fukki junni daan may benn dërëm li la benn dërëm ngordu daan may boobu fi mu fukk fukki junni ci xaalis mën la ko may mu laaj ñetti téeméeri dërëmi ngordu <coughs> mun ko baax na doom tubaab ba dem maam Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridina daal di dajal ñi téeméeri dërëm nguur daal ñëw jox ko góor gouverneur général mu ni ko bi ma lay laaj ñi téeméeri dërëm nguur bi damaa jortal ne doo ko mën a am ginnaaw am nga ko nag da ngay wut seere ma dugal ko ci biir sa France muy constitution bi nga xamante ni mooy mën a jëlee borom Touba Xaadimu Rasuul gànnaar indi ko Jolof sama maam si rafet di ko joxoñ madame bi muy ni ko kii ku mu doon tubaab bi ni ko kii sama soxna sama maam si ne ko def naa ko seere gouverneur général ne ko waaye kii sama jabara sama maam si ne ko waaye mën na laa seere ndax sam nawle nit ku nekk am nawle mën na koo seere xolal moom mo xel mo rafet ba jappante ak mom ca nona nak mu dal di jël ñëpp timi dërëmi ngor bi jokk gouverneur général mu bindal ko nak ben papier ba mu fess jokk ma maam Ibrahima Fall ne ko bo génnee gouverneur Mauritanie moy moy moy bitima bële nga jàkkaarloo bo gouverneur Mauritanie si mu nek mi ngi biir Ndar gouverneur général mi ngi biir Ndar seen ñaari bitima yaa seenante bo démé demee gouverneur Mauritanie su ko defee mu dugal ko ci courrier bi biy jëm gànnaar troupe militaire bi yore sëriñ bi fa mu fekk sëriñ bi ñu daldi ma ko indi léegi ndar waaye gouverneur nag bind ko ba noppi tànk dossier bi fàtte ko signé saa maam si Ibrahima Fall dal jël dossier ba jox ko sëñ Modou Lo Cheikh Seef sëñ Modou Lo Cheikh Seef nag sëñ Mambay Lo mee ca kees mu sëriñ looyeen si moo jur sëñ Modou Lo Seex Seef ndax bi tubaab yi di laaj taaw yi kilifa yi sëñ Mbay Lo dafa wax ne sama taaw bu góor ak bu jigéen duma ko jox ab tubaab Cheikh Fall laa ko jox jox sëñ Modou Lo Seex Seef mu def ko muy bëkk néegam mu jur jur soxna Xadi Lo jox ko maam si Ibra mu dëkkoo ko am ca soxna Sooda Fall soxna Sooda Fall jox ko mu Mamadou Lamine jenn mu am ci sañ naar jenn ku moom ñaari taaw man la ko def sëñ Modou Lo moom it tax ñu di ko wooyee Cheikh Seef bi maam Cheikh Ibrahima Fall nekki njëriñ ñaari quartier yi maam Cheikh Ibrahima Fall amoon benn quartier bi Cheikh Fall tuddi ko Makkatal Mukarram benn quartier mu tuddi ko Madinatu Munawwara ñaari quartier yooyu la joxoon sëñ si sëñ Modou Lo tey doomi Cheikh la mu nekk chef de quartier ba noppi nekk ab Cheikh ñu naan Cheikh Seef mu jël dossier bi jox sëñ Modou Lo Seef sëñ Modou Lo daal di ko yóbbu ci gouverneur Mauritanie gouverneur xool dossier bi. lii li li gouverneur général la xool na cachet bi tampon bi waaye signé wu ko mu daal di mu daal di baxañ kayit bi daal di koy sànni ni ko yéen murid yi ay trian ngeen diggu lool la murid yeewu gi mu yeewu ak nite gi murid nite jéggi gi mu jéggi doomu aadama yi fi ku nu xamagul fi nga lay jiiñ yàgg nañ fi jiiñ waaye ba suttee nga xam ne du noonu te ba suttee di nga yéem sëñ Modou Lo nag ca yar ba ko maam Cheikh Ibrahima Fall yar ak teggin ya mu ko booleel mu daal di foraat kayit bi ndànk gouverneur Mauritanie ni ko boo diir si nag dinaa la fital mu dem ci maam Cheikh Ibrahima Fall ni ko man defaal gouverneur Mauritanie lu dul dóor def na ma ko daal ko jokkee mënu ko lu tax doom mun kaa ah, lu dul dóor dox def na ma ko de maam si kanam Fall daal jiitu sëñ Modou Lo Cheikh Cheikh topp ca ñu daal di ànd ak ci gouverneur sama Ibrahima Fall wax ko lii ndaw lii wax góornóor seeraan daal di xoolal këyit bi vérifié ko bu baax daal di haa gouverneur Mauritanie man mbind mi amul benn faute def naa ci sama tampon waaye moo ko fàttee signé signature bi ci nekkul nag moo tax mu wax li mu wax daal di jël këyit boobu xotti ko def ko ci poubelle bi daal di jëlal beneen papier daal di jël daal di jël pilim boobu big amul pilim moo am dañuy bind jël pilim ak encre bu ñuul bind ba mu xaaj mu teg booba big booba pilim ak booba encre jëlaat beneen pilim ak encre bu xonq yëggali mbind ma ca suuf mbind ma mu yëggale ca suuf nag moo garaaw moo tax nu murid yi ku xam na nga na nga bàyyi xel la ñuy mujj am ca cong bi nga nu song ma ca mu bind ko nag encre bu xonq la gouverneur général wax gouverneur Mauritanie ne ko yow gouverneur Mauritanie mbind mi xam nga ni sama mbind yàgg nga recevoir sama mbind tampon bi Afrique francophone de la woyof maa ko ci am gis nga sama tampon fàtte gi ma ko fàttee signé nag feeñal gi ngay feeñal sama matadi man moo ma métti léegi nag dossier bii ma la envoyé ba su fekkente ni kii ma la boole jéggal na la jéggal naa la su la jéggalu nag bay boo nga defal nag say bagage dinaa dinaa téléphone ministre de la colonie ca France mu wax ko président bi mu mu ma beneen gouverneur Mauritanie ñu indi ma ko yow nga yow ñu delloo la France daal di sañ a tëj teg ci loxol maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima Fall jëlal dossier boobu teg ko ci loxo suñu Modou Lo Cheikh Seif suñu Modou Lo jël dossier boobu daal di koy delloowaat gouverneur Mauritanie ba mu yeggee ñun ko sa waa ji ñëwaat na gouverneur Mauritanie wax daal di wax laptoo bi maanaam ki nga xam te ne mooy interprète bi ni ko xanaa waxuma ko woon bu dee si daa ko fital sëñ mu doon ni ko na ma fital ndigalu Cheikh Fall ba ñu ma cee dee daal di jël këyit rek teg ko ci taabal bi mu xam ne bii këyit wu yees la te ci gouverneur général la jóge ba mu ko liiree ba yëg ci mbind mu xonq mi dafa daal dindi casquette bi mu sol teg ko ci kaw teg ko ngir mu jéggal ko sëñ mu Lo ne ko man awma lu muy bëgg awma lu may bañ cheikh saa sama sang bi dal li mu bëgg bu ko amé man jéggal na la gouverneur gouverneur Mauritanie daal di jël ben papier def rapport bopam moom itam boole rapport gouverneur Sénégal euh, gouverneur général épinglé ko dal ko duggal ci courrier bi jëm gànnaar courrier bobé dafa yegg gannar day bisu gamu muy fukki fan ya ak ñaar ca dam ku baax ki yeggali bisu gàmmoom ba mu yegg muy muy muy 1907 fukki fan la yegg ak ñaar di bisu gaaw la yegg Mauritanie le courrier bi yegg dalik bisu gàmm ko baax yeggale gam gàmmoom ba noppi ba bis ba ci siwet muy bisu gaaw sëriñ tubaa nag gaaw da ca yàgg am martaba ay déplacement yu gën a bari ci gaaw koy def di di fukki fan ak juróom-ñeent ca weeru gàmm boobu bis ba dellusee man a Ibra Fall di fii ma nekk ndigalu saa borom fi téye ndigalu tubaab bi téyewu ma fi waaye jëfu seeraat jëf Ibra Fall di dey daje naa jëfi saa borom daje nag ndigalu saa borom li sëñ naa jibli de léegi fi jógee ni ma sab jotaay jeex na gàddaar daje nag jëfi Cheikh Fall bii nga xam te ne lee moom muy muy baatinu jeexu suñ tubaab gànnaar saa borom yëba Seydina Jibril mu wax ko borom tubaa Xaadimu Rasuul lii nag li nga xam te ne mooy saayir si nga xam te ne moo tax diggam ak tubaab bi Cheikh Fall mu dul contrôler dossier bi dox diggante suñ tubaab ak tubaab bi moo tax wa ab tàkk fi ma atteeka lahu daaral axirata wala tasa nasibaka mina dunya cër yee bu amee cër àddina yi daa am ndax alxuraan ko wax wala tasa moo tax cër bi Cheikh Fall ni ni ak borom tubaatam sëy si noonu la ko daan bu dossier bu gis ni ni mu ko lijjantee ci góoróon général mu ñëwee nag gouverneur général laaj maam si ko fa mu ne ko dañ ma ko indil Touba ko déedéet loolu mënta am daal di koy wax lu beles waxal Cheikh Rafaal góonu seeraal waxaat ko ko ne ko fu nekk ci Sénégal président de la république bu France nangu ñu yóbbu fi sëñ Touba ba mu des Touba ndax asamaan ñaari bunt la te suñu fóoree làbbe yi wax nañu ne benn bunt bi mooy Baytul Maqdis mooy Jérusalem fa la rasulullah alayhi salaatu wasalaam jaaran ba muy gàddaay guddi riñaan nga subhaanallah si asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila masjid al aqsa fa la rasulullah alayhi salaatu wasalaam jaaran beneen bunt bi mooy Touba moo dëppoo ak baytil mahmur baytil mahmur mooy kaaba bi nga xamante ni moom la yàlla defal malaaka yi ñu di ko siyaare ci kaw ñu ñu defal lu baytul haram fii ci suuf buntu Tuubaa boobu dëkk dëpp ak baytul mahmuur nag ku ko tiim suñuy pexe dootu man ci yow dara te tubaab bi wóolooguñu Sëriñ Tuubaa kon nag fu ne nangu nañu mu dëkk fa ci senegal ba mu des Touba ndax baytul mahmuur moom la mooy buntu ñaari bi mu dëppool ni ko ni ko jullit bu faatu te du ab murit muy dem àjjana tubaab bi wax ko ko de ne ko di ko fóoree bi lin ko wax jullit bu faatu tudd am murit te ak room di dem àjjana baytul maqdis la la ak room di yéegee muy Jérusalem murit bu faatu nag tey dem àjjana tuubal la ak room di yéegee ndax moo dëpp ak baytul mahmoud ne ko kon nag moo il n'est pas question nag pour ñu ko tuubaa waaye am na fu ñu ko yóbbu fu ñu wax ci yéen jolof saa wala si rafetlu ko fu mu ci réew mi baax na moo gën a jege murid yi léegi nag xoolal nag Sama Ibrahima Fall dimension boobu mu amal dimension intellectuelle boobu mu am dox ko ak diggante góoroo général te tubaab yi ñoom ci ci intellectuel la ñu bëgg nit moo tax tubaab yëpp bëgg ko tubaab booba nag yàlla dogal soxnaam sa daal di am doom ca déwén sa mu tuddee ko maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin mooy père père Ibrahima ñaari tubaab tudde nañ ko doom muy gouverneur Karl tudde na Cheikh Fall doom gouverneur général bi ñu wax Lému tudde na Maam Cheikh Ibra doom kon nag na nga xam te ne tubaab bi suñu demee bay wëlërante Maam Cheikh Ibra di jël seen doom di ko tuddee Père Ibrahima Père Ibrahima ñooñu kon euh, cofeel gi ñu amal ci Maam Cheikh Ibrahima Fall mooy dimension intellectuelle boobu mu amal te ñoom noonu la ñu bëggee moom looloo tax ñu bëgg Maam Cheikh Ibrahima kon ñu ko ñu ko bëgg ci xam-xam xam-xam baa tax ñu bëgg ko leeral naa ko léegi ñu ko bëgg ci lewet lewetaay baa tax bëggan ko naa ko léegi ñu ko bëggan ci intellectuel loolu tax ñu bëggan ko mu tubaab bi mu ñoom tam bëgg nañ ko loolu gis nga ndegam tubaab yi ko bëggan nag ñi ma bokkal diine lislaam ñépp bëggan ko ku fi mos a yor ab tarixa li ko tàmbale ci Cheikh naa Cheikh Sadou Abdi ko jiitu woon Cheikh Sidil Muxtaar Kunti Cheikh Sidi Yal Baaba bëgg gi ñu bëggan Cheikh a Fall ba ci Cheikh Mayil ay nay nii gën nga way yi ma woy Cheikh ba dañoo jublu ba leen ni ko nu indi ko bëgg ki ko bëgg ba gis nga sa mag ju sëñ Sidi Fall si Moustapha Fall wóllëre wu Cheikh Sidi Moukhtar Kounti am ak Cheikh Fall moo tax moo tax sëñ Modou Moustapha Fall tudde Cheikh Sidi Moukhtar Kounti tudde ko sëñ Sidi Fall mii sëñ Sidi sëñ Moustapha waaw Sidi Moukhtar ndeysaan a mu jigéen Sidi Moukhtar rek la ko daan wooye nga xam te ne kon nga si kon sa maam ne ni ko nit l'islam yi bëggee woon maam Alaaji Maalik bëggan gi mu bëggan Cheikh Ibrahima Fall ak bennoo gu ñu bennoo woon ndax tol bi ñuy yëngu muy lislaam te bëgguñu tool bi booyee fenn te ci rafaal yi mu ci yëngoon waa xamante ne naw nañu yëngu yi moo tax it tiijaan yépp ko bëggandoo woon nag kenn bañu ko maam amari ngóone ndaag faal maam ndaag faal ba jëm bëgg bëgg yéeme na boo demee yoofu maam limaam ñoom te ni ñu bëgg seen Tuubaa bëgg ñu bëgg seen faal yéeme na kenn bañu ko de kon nag ginnaaw ñoom ñoom ñoo ko bëggante lu ñu bokk bokk lislaam nag takkuwuñu woon te te te al aqrabu rawatina ñëw bokk na nag Xaadimu su borom Tuubaa ni ñu ko bëggee woon mëni su ko am na bi si ëpp xuddoo wax na ci màggalu Daaru Muxti ni maam si Ibrahima Fall mos na ñëw di siyaar si maam Cerno ñu ni ko bëkk bu daw ne ko siyaara day nuyoo ko waaw na yëg si bëkk ni bu doon ba génn ci ëtt bi diir si wat ci maam Cerno ne ko buntu penk bi lay duggee wala buntu saw mu ni ko nañu dagg sàkket yi tëral ko fu ko neex jaar ndax seerafal xëyul ci bunt su so demee ba ba dem ñu yëkkati ma samay sàkket xool googu cofeel ak ak boobu dimension bi mu ko jox ak ak darajaal bi mu ko darajaal lu ne toll yumbut ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ci jaaxasoo boo demee daru muxti nak fi ni man na la ay eh, turandoo imaam si ibrahima fall yu sant mbàkke ak ay turandoom sa wujuru bax sir sëriñ asan fall yu sant mbàkke bokk ci waa daaru muxti sey mi wujuru usman ousmane ma maatuum néegam man mi waxtu wi fal waxtu wi rek tembe mu dëkk ci biir néegum ñax boobu sëñ Ousmane a ngi fi keroog ak laaxu ci faay la ma maam mari ma sey jox moom laa añee Cheikh Fall keroog may waxtaanal mun ma kër kër maam si Ibrahima Fall fa laa yaroo Cheikh Fall moo ma jox sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa jox ma cer na xool googu jaxasoo moo waral nag sëñ Modou Kara mi jaxasoo gi ma jaxasoo Baay Faal yi loolu ndax si Ousmane mi nga xam te ni maam Mariama muy wuy jur si Ousmane maam Mariama Sey moo ma wax ci kàddu boppam wa maa sayyidnaa illaa bimaa alimnaa wa maa kunnaa lil xaybi lil xaybi xaybi xaafisiina moo ma wax ni ma kër Cheikh Fall laa yaroo ci làmmiñam wallaahi moo ma ko wax laa ko ci fay la ma jox keroog ma jaxasoo mënut a weesu loolu. kër Baye Dame Sall la nekkoon Wow. Baye Bouba Sall mi. waaw jërëjëf Fall loolu seer la xoolal maam Cheikh Seydil Mokhtar maam Cheikh Anta diggam ak mam Cheikh am ab taaw bi ko jëkk a toogal xalifa mooy ndax kër ga bi nga xamante ni maam si Ibrahima Fall borom toba gërëm na ko ama wasasin wasasin nag ñeenti mbir dañ caa daje ca la Cheikh Modou sambak ak alayhi salaatu wasalaam gane jamono ca la serigne Fallu gane jamono kee gane jamono ca xarit wa kee gane jamono ca rajab ca la borom Touba Xaadimu Rasuul sanc Touba ndax maam si Ibrahima Fall moo gor Touba moo ko gor tawat jooju ngay dégg ni mu tëdde mooy bi mu ko goree ba noppi booba dongi tribu yi bëriwul dog dog da cee am ko baax ki borom Touba wutlu xasum wén kon nañ mu yi jàpp lool xasum wén daal reelu ab gàtt ñu boole xasum wén mi ak ndawlu gàtt gi togg ko ba mu ñor sa maam Cheikh Ibrahima Fall ak ak murit bi yi doon gor dëkk bi na lekk ca ndawal ga naan ca ñeex ma bu ci ba ñu xëyee kenn ko nekk nañ joraat ndax xasum wén ak ndawlu gàtt dafa baax ci dog dog ba mu sañcee Touba ba noppi nag la borom Touba gërëm maam Cheikh Ibrahima Fall ca daaray goor ji mu neen fii ñuy wax teen maam Cheikh gërëm ko ci Daaru Salaam doog a toxoo Daaru Salaam nag ñëw Tuubaa booba weer booba booba juróom benni at la yoon murit am li ma ciy leeral mooy ama sasin la maam si Ibrahima Fall ànd ak borom Tuubaa ama wa la ko yewi muy juróom benni at te mu siiw ni ñetti at la maam Cheikh Ibrahima Fall liggéeyal borom Touba te ñu wax loolu itam wax nañu dëgg te lii itam dëgg la kon nga xam nga ne xàmmee da caa baax ama sasin la fi sëriñ Momar Anta Sali bàyyi ko maam Cheikh Ibrahima Fall jébbalu ci ama sasin ca Mbàkke Kajoor ca weeru koor ba mag ña waññi weeru koor woowee juróom benn weer la maam si Ibrahima Fall def Mbàkke Kajoor moo ku baax kii borom Touba Xaadimu Rasuul aw koor aw kori aw diggi aw tabaski aw tam at ma jeex sësin ama sësin ter ca tam xarit ba weer wa ca toppaat di diggi wa aw tamxarit aw digg muy safar ñoom ñaar ñu daal nag mbàkke kajoor ñoo mbàkke bawol te ñaareelu weeru ama assasine ñetteelu weeru ama assasine di weeru gàmmuwa te la borom Tuubaa jëkk a ndax war may borom Tuubaa ji musta gàmmu ci kanam wuy juróom wi sëriñ Momar Anta Sali mos cee feeñal genn kilifteef ni ma ko waxee woon léegi maam si Ibrahima Fall li muy dégg-dégg luxatu arabiya da daan moytandi di wax arab ngir Serigne Touba di ko ko wormaale Serigne Touba tam Xaadimu Rasuul wóotiwul weeru gàmm ci kanam wajuru Serigne Momar Anta Sali radiyallahu taala bi ñu ñëwee ba Bawol nag ama assisin ci liggéey Rasulullah alayhi salaatu wasalaam ci la ñu tàmbalee seen liggéey mo borom tuuba ak kan mam Cheikh ibrahim Fall samam babu murdina ko ba ci wax ni ak yeytu mawlidi nabi min wa khadali fawkhal muna min jëy sasin kon assassin lañu ñu gàmma bawol kon nga xamni ni la jébbul ndax delu watu mbàkke kadior te mbàkke kadior la ñu mbàkke bawol lolu bindum sëñ mo moo leeral ni maam Cheikh Ibrahima Fall la jébbalu ndax mbàkke ba ñu jógee mbàkke kajoor delluwaatuñu fa te assasin la gàmmu fii ci mbàkke bool sañc Daaru Salaam ama da sasin da sasin mooy deel ñu naa ko daal ama da sasin ñetti at yooyu jiiti woon nag assasin basasin jasafim ñetti at yooyu ci kër yi maam maaram yoom sanc ak këri sëriñ Mamad Anta Sali yoom sanc ci la borom Tuubaa daa nekk ak ku baax ki maam si Ibrahima Fall Baabil Muridiina ama dasasin nag fekk booba ku baax ki menum soxna Fadja moom la taxawal ci njaboot lu ñëw daal di wàccu liggéey maam Cheikh Ibrahima Fall nag matum jalamban mi borom tuba daan taaloo da ci tàngal café da ci tàngal attaaya ak yu deme noonu matum jalamban mooma moom la maam Cheikh Ibrahima Fall daan taxe ne alub Daaru ak di sàkket kër di defar ay néeg muumu muumu boobu muumu suuf sa ci sayir ndax këri kër sëriñ moom ànd sali wala kër maam maharam waaye sëñ Tuubaa moom moom lépp malaka nii duniyaa wa uxra samadu maa indi wala tar o Muhammad waaye sayr su booba am na ñu ñu dox diggam ak loola maam si Ibrahima Fall dem daru Salaam wax ak suuf sa ñu ni ko Mbàkke gis naa suuf soo xam ne ku dëkk ca kaw suuf sa di nga tàggoog ak yaradal yaradal mooy loo jur mu faatu di nga tàggoog moom la commencé ne ko di ma tibb ca suuf si indil ma maam Cheikh Ibrahima Fall daal di jóge Mbàkke Bawol dem Daaru Salaam tibb ca suuf sa ñoo jox ko baax ci borom Tuubaa Xaadimu Rasuul borom Tuubaa daal di xool suuf sa ni ko nit ah ni ko nga dëgg de kon boo demee goral ma fa barab ba yaatu te takkal ma fa am néeg maam Cheikh Ibrahima Fall dem goral ko fa barab ba yaatu takkal ko fa am néeg loolu day laaj saraa néeg boobu mooy néeg bi ñuy wax ni maam si Ibrahima Fall menn moom dong moo ko tegan ci Daaru Salaam daari tërbiya nag maam si Ibrahima Fall sanc ko ama dasasin diggante dasasin ak wasasin nag mooy ñetti at yi nga xamante ni moom la ko liggéey ci ak tërbiya ndax ñetti at yu jëkk yi nee la booba ci kër yi sëriñ Momar Anta Sali wala kër sëriñ maam maaram ci la ku baax daan nekk ak maam Cheikh Ibrahima Fall ñetti ati tribe yooyu nag moom la mag ñi wax ne ñetti at Ibrahima Fall liggéeyal borom Touba waaye nag ci ak tribe bokk la ñu ne ñetti at la ñu ànd ànd nañu juróom benn at ama sësin la jébbalu ñu at at ma daal di ñu nekk fa juróom nekk def ca euh, ñeenti weer at ma jeex te ak te ama sasim a ñu tàmbale ama ak sasim ba ama da sasim sama ci Ibrahima Fall sañ ci daal di tërbiya ku baax ki jël ñi toll ci tërbiya jox ko maam si Ibrahima Fall mu tërbiya leen ci Daaru Salaam yi nag mu sañ ci Touba daal di koy ñaanal nag yéwee ko mu dem dara ñetti at yooyu moom la ñuy wax ni moom la maam Cheikh Ibrahima Fall liggéeyal borom Touba liggéeyal borom Touba nag bokkul ak ànd ba ànd ba juróom benn at la waaye sosub daaru tërbi daa sosub daari tërbiye ga ak fi ma ko yewee ñetti at bi mu sëntee Tuubaa nag yebal ko Ndar maam si Ibrahima Fall Baabil Muridiina am nag yu mu fa def ci ay baatin doxal fa baatin bu mu sëg ko bàkke wooluwaat ko nag ne ko Ibrahima Fall mu ne ko Mbàkke mu ne ko wuyu si mu wuyu si ko mu ne ko lee saa borom ko dogalam ba mu ko dogalee nag saa maam si Ibrahima Fall jëfandikoo baatin bi mu jëlee ci ku baax ki ak ak may gi ko yàlla may loolu riir loolu ndar di riir saa yu jubloo naa ci waxtaan insha allah ba mu ñëweeti nag la sanc ñeenti daara yi mu sanc Tuubaa jii daar maam si Ibrahima Fall ne ca jee daar sëñ Daam Abdourahmane Lo ne ca jee daar sëñ Daaru Asan Njaay euh, Ibrahima Sarr Njaay nekk ca ba mu liggéeyaati nag ba daje gan ak jamono Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke xalifam sëñ sëñ bii fi nekk Cheikh Seydi Mokhtar yàlla na fi yàgg te wér te am ngërëmu sëñ Baara ak ngërëmu sëñ Tuubaa nu mbokk am defal ko sëñ Cheikh Jëmb Fall defal ko njabootu maam Cheikh Ibra Fall gépp njabootu sëñ Tuubaa gi te defal na ko Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke dale jamono nag ci at moomee taarix ba nag am na ñu ni 89 am nañu ni 1890 am nañu ni 1891 waaye génn yooyu ñu demal Cheikh Mamadul Amin radiallahu taala anhu moom borom Tuubaa nag ci la indiwaale ñeenti ngërëm yi ñeenti jëwriñu daara yooyee mu nekk nag ñaareelu ngërëmu maam Cheikh Ibrahima Fall moo tax mu mat a na maam si Ibrahima Fall ànd ak borom Touba juróom-benni at waaye tërbiyee ko ñetti at te boo xam ni da ngay da jàpp ne kon ñetti at lu ñu ànd te juróom-benni at la ànd waaye daari tërbiyee mooy ñetti at waaye ànd juróom-benni at la ngërëm li Cheikh Mamadou Lamine indiwaale itam day ñaareelu ngërëmu maam si Ibrahima Fall. ndax at ma Cheikh Modou Moussa Mbacké alayhi salaatu wasalaam ganee jamono ak Serigne Fallou borom Touba sanc ci Touba at moom la Serigne Touba jëkk gërëm Cheikh Fall yi bal ko ndax ba mu dem ba del siwaat ma sosaatal ko dëgg jënin daari tërbiya boole ko ñeent ñooñu mën a tudd léegi sëñ Dame Abdourahman sëñ Daaru Asan Njaay sëñ Ibrahima Saar Njaay Cheikh Mamadou Lam indiwaal nag seen ñeenti ngërëm yooyu dëppum ñaareelu ngërëmu maam si Ibrahima Fall ci ko bàkk borom Tuubaa maam si Ibrahima Fall nag borom daa da ko yebal Daaru Salaam ba mu ko yebalee Daaru Salaam mu nekk fa moom Cheikh Seydil Muxtaar maam Cheikh Anta borom Darou Salaam ca kër Sëñ Tuubaa ñu bokk nekk ci kër ga ba ñu fa nekkee nag ba jëmmi jamono sëñ Modou Saa Fall fa la ganee jamono ci kon nee la 90 91 calañ cala cala amee ñaari yu ngërëmam moom maam si Ibrahima Fall ku baax ki yebal ko Daaru mu bokk ak maam si Anta kër ga ba mu demee nag ba mille ba 1893 sëñ Modou Moussa Fall ganee jamono foofa ca Daaru Salaam ñu dox ku baax ki daal di yónnee ci Cheikh Ibra Fall ne ko nag na bàyyee Cheikh ak kër ga maanaam na bàyyee maam si Anta kër ga te bu dara génn na bàyyee maam si ant ak kër ga te bu dara te bu dara génn bu dara génn joojee soxna Fatou Sayar mi nga xamante ni mooy wayjur sëñ Ali Fall Mbawar mii di wayjur sëñ Mor Talla Fall soxna Fatou Diop Sayar ba nga xamante ni ñu ñu ngi génn Daaru ndax boobu mu nga ca kër ga kalamba gi soxna Fatou Diop Sayar yoren kalamba mooy bu dee tubaab ku du luus tudd waaye mbaxtu lay doon loo xam boo xam ne law ba ko yett law ko yett kalamba ka yoroon ŋàbb ko maam Cheikh Fall dafa nangu kalambagal sànniwaat ko ci biir kër gi doo doo ko dellu ndar waaye si Moustapha ba mu demee ba 1901 muy juróom-ñaari at ndax 1893 ba 1901 juróom-ñaari at la saa maam Cheikh Ibrahima dafa jël si Moustapha jox ko sëñ gaawaan fa la jàng alxuraan sëriñ Layfu Silla wéy jur sëñ Jaga Silla mii moo ko jàngal alxuraan. lolo sax waxtan na ci señ deug si la mii yili mari daru salam yalla nako ko yàgga doon te yàlla nangul sunu jaamu sëñ Moustapha fa la jang alquran ba 1914 la ko sëñ gaawaan dooga yi ñaanal mom te mu am ngeer mu Cheikh Fall la ko fa yóbboon am fa mu señ gawan mu dal delu wat nak ci maam te wujuru mu bax maam ci Ibrahima Fall mu ko fekk ngumba ngewol bobu señ Cheikh Fall señ ci di këram ko ci ngumba lolu doyna ak jofeel doy na ak bennoo doy na ak déggoo Cheikh Fall ñépp ko bëggal digganteem waaw ah, ba loola jàllee nag foofa dafa jàng alxuraan waaye tërbiya nag bi ku baax ki jógee gànnaar 1907 jooju ma ne wax dajanteeg 1907 joojoo tam ci la sëñ gaawaan yiwi maam yiwi sëñ Modou Saafal ginnaaw bu mu manee bu ma bu ëlluwaam yeggee lépp mu fekk maam si Ibrahima Fall ngumba ngewal ci la maam si Ibrahima Fall jël na juróomi doomam yooyu yii ba juróom benn sëriñ Fallu Fall mi di ab taawam sëriñ Moustapha Fall ma ca topp moom mii sëriñ Mortala Fall ah sëriñ Basiiru Fall sëriñ Mortala Fall sëriñ Assane Khary Diop mi nga xamante ni mooy magi sëñ Mbacke Fall mii woy dur sëñ Basiru Fall alxuraan sañ Mbacke Khary Diop ak sëñ Ablaye Fall Ndar mii ak bàjjen Fall Fall Cheikh di seenub jigéen ak ak soxna euh, Boussa Ndiaye di jabaatum maam si Ibrahima Fall Babi Mourideen ci la leen jël yóbbu leen ci yéen Jolof ci sëriñ Touba ñoo jëkk tàmbali yor daara yi borom Touba ja fa war a def ñu def ko takk néeg ya sàkkir kër ya di def lépp sëñ Moustapha Fall fofu la terbiya gina bu mu jógee ca jàng ba mu doon jàng Daaru Salaam ca sëriñ Gaawaan kon lolu doyna ak tiofel digeunte Mansour si Fall Babil Mouridina ak sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo ñom ñaar seen ñaari jëm yi du ñaari jëm jën jënn jëm la won ndax sa maam si Ibrahima Fall moo wax ni xeexe dom màngam Abdourahman noo tolloon nuy màggi jëm ci yàlla dara si ndam Abdourahman suba gu xëyee dina màgg jëm ci boroomam lu ni ak ron bi màggee lu toll ni doxub jant bi jëm kaw suba gu xëyee dina màgg jëm ci boroomam lu lu toll noonu daañu doom man Ibra Faal suba gu ma xëyee dinaa màgg jëm ci sama borom nu mel ni ak didd di màgge law law law màgg law jëm ci boroomam loolu lu toll ni doxub jant bi kii màgg jëm koo toon doxub jant bi ne suba gu ma xëy man doom dinaa màgg jëm ci sama ni ni ak dédd di lawe ak dédd ak garab la wala ak geer ni muy lawe ne suba gu ma dinaa màgg jëm ci sama borom lu toll ne doxub jant bi lu toll noonu ñu wëlërante bi fi sama maam si Ibrahima Fall jógee dafa feeñu sëñ daam keroog bi ñu dajee fii ci ndaam muy deru alimul xabir dañoo mel ñaari yëkk yooyu daje dañu ni kii songoo mu ne ko sëñ daam mu ne ko faaw mu ne mu ne ko dafa dafa dama bëgg dama bëgg dama bëgg tukki tukki bu sori te loolu um koor la bu boobaa na ma na ma na toggal ay ndogu daal ko sant loolee na mu wutal ndogu bañu ko jógee ci la mu gisee ak sëñ Dame Abdourahmane Lo sëñ Dame Abdourahmane Lo jàngal na maam Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridina téeméeri kaamil alquran ci làmmiñu boppam moo xam te ne wuutewul mbooloo la daje fa kàddu bu laa ma ñu boppam sëñ Dame Abdourahmane loo jàngal na ko maam si Ibrahima Fall ginnaaw bu mu fi bàyyi ko loolu kóllëre ak cofeel mënta weesu lool soo dee xool diggante ak sëñ Mandumbe maam si Ibrahima Fall baa bi muri diina mboolem jumtuwaay bu mu doon liggéeyale ku baax ki borom Tuubaa Xaadimu Rasuul moo xam ab daba la moo xam aw sémmiñ la moo xam goj la moo xam baag la moo xam ak bagaan la matériel matériel boobu yépp bi maam Cheikh Ibrahima Fall bi mu amee ngërëmul borom Tuubaa Xaadimu Rasuul ci loxo Sëñ Muntaxa Mbàkke la ko teg Baay Faal gi ci la ci la juddoo saa baay juddoo ci lépp doo dégg ku sant Fall ku ne bagage maam Cheikh Ibrahima Fall mi ngeen man yooyu mu doon liggéey Sëñ Muntaxa la ko jox bu la ko xalifa Sëñ Muntaxa wul du neex a wane kon loolu doy na cofeel saamaam si Ibrahima Fall yu mu doon liggéey borom Tuubaa ba am ngërëmam mu rafaatili ko suñu mun du mel mbàkk doy na loola soo ko dee xool ci cofeelam ak digganteem ak ñi mu nekk sëriñ bi noonu la deme digganteem ak sëñ jéeri waa daal la demee mboolem digganteem ak Cheikh Issa Dieng ndax Cheikh Issa bi mu nekkee njaareem ak ku baax ki borom Touba su fekkente ni borom Touba wax na loo xamante ni moom ci jëmmi boppam loola du lu ma mën a indi ndax ku nekk la yàlla may day daal di yónnee ndaw ni ni ndaw li dawal ni Cheikh Ibra dégg naa ku baax ki wax nangam am na ci yitte. islam mën a daal di def ca saasa moom da koy daal def ca saase bu dee loo xamante ni loola du loola du ëpp cëram loolu lu mën a def bala ko kenn def Cheikh Fall rek la ko Cheikh Issa génn yéene mu daal di yebal daw ci ci ci Cheikh Fall moo tax ñu ñu jàppat ne Cheikh Issa ambassadeur Cheikh Fall la ci kër Serigne Touba xool kooku cofee noonu la ñëpp mel moom la ñëpp ñëpp nag koo tudd ak koo tuddul Amadou Mokhtar Diop mun Diop sëñ mag bee ko yar wax na ma ni ma man ak sëñ mut sëñ mutu saa Mbàkke banjaga ya la ilaha illallah li du ne nga gayaam bu doon neen faal du sore Bamba ji faal faal Panjagaya